ñangara si ba hujan waaw waaw la seri den dangan kampuma wala kampuma dangan fii si Saly Joseph ndeysaan tey le 17 décembre 2022 ak Gori production yee ñangar fay mbër fili nga noonu ndeysaan mbër fili nga ngi nii mbër waaw feeling laa ko tuddee étudiant plus mbër wala mbër plus étudiant waaw waaw mooy takk sengoor ya cey ñangs koy génn sa mbéet mal wala lan buntu ba lay rat wala lan da lay day tëj xanaa ñangar xa porte yi day tëj ñangar porte yi day na porte yi ba door feeling la ko tudé ci ñaar waaw waaw ki bu sottee gauche kii sotti droit waaw waaw eh, doole rek ndaysan dina ko boko xolé do la ci anam mbër bi ndaysan ñu nuyu grand min jàpp moom ngóor ndangaan yehe eh, ñu nuyu waa ndangaan ya yëpp di leen bégee wali sar jël na ñu bi teg ko so loxo li yaay ko jur yaay ko jur waaw waaw li sa yaay nga xam na xaaji waalo ngay jat waaw waaw jëlal ñang nam kay jate nee naa la Serou Farawo bi indil ku nekk la indi sa cosaan moom la wobel Serou Farawo indil ehe ehe Pakala Lawbe waaw waaw ehe lay la la la mu jàngay ngay neex waaw ak Tengadé Ba ak Farou Mbambi yehe Pakala Lawbe la ak Sori Para Wo bi ndeysaan ye waaw waaw Galmu Ndour Asfiyahu Diène ànd ak Grand Tapha Tine ak sanche bu rafet waaw bam général wali fay ngi non mom tamit eh eh lawbe bi tey nee na daa sey dugg see am na doole wooy lawbe bi faga la lawbe la borom Jurbel borom Mbuur